bismillahi irrahmaaniirrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa la ñuy nuyoo ñëpp di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp sëriñ bi yónni nooy kàddu de wax ne mi ngi nuyu bokki taalibe di di leen feddalil kolle rek sëriñ Tuubaa gi mu saq ak ñëpp sëriñ bi ne xam na ne mu nekk day namm na lool taalibe yi itam namm nañ ko lool te ànd ak ñoom liggéeyub sëriñ Tuubaa bi rek mooy yitteem xanaa nin ko bokk xamandoo lii fi suñ boroom jaarale tam nekk fi daaw ba ñu di ko wooyee mbas mi muy wér ji fi jaar jàngoro ji nag daaw ba mu fi egsee suñu jël na ci ay matuwaay li mu ci war a jël yëpp ca saayir ak ci baatin kon nag xam na ne ca saasa la ci daa def ñaar téeméeri million muy saayir si waxoon itam ne ñi yor wàllu kër docteur yi di saytu wér wér doomu aadama yi li ñuy santaane nañ koy sàmmonte ak moom loolu weesuwul ni mu ko waxee takk tàmbalee ko ci takk gis ñëpp mu di ko takk tàmbalee ko ci raxas loxo yi ñu gis ñëpp mu di ko def ba ci dandante bi loolu taxoon na daaw ba mbas mi ñëwee màggal yëpp lu mel ne màggalu Kazu Rajab màggalu daal moonti ñu soppi woon defin wa wàññi xumbin wa ba ñu ci koor ga ñu wàññi woon defin wa soppi ko nañ daan joxe ndogu ñu soppi ko lépp di bàyyi jàngoro ji xel bañ yàgg ci kori ga ba ñu dem dem dem ba mu yàgg mel na jàngoro ji daaw am woyof am ci xew-xew yoo xam ne ba mu xewee mais yowaatu nañu as lëf ci xaw ko yokk tuuti ba ñu weesoo loolu ñu demaat demaat ba weesu Màggal Tuubaa weesu gàmmu mel na jàngoro ji daa yéegaat ah sëñ mi ne kon wattandikuwaat jotaat na nañ ko defoon daaw ba muy door a song te amoon doole mattandikuwaat gi nag kon mooy gën a soññewaat ci liñ ci war a def ci li ñuy wax mesures barrières yi te loolu sëñ bi waxoon na ci wax woon na ci saabas jamono yee ci ginnaaw it mu wax la woon mi kàddu yoo xam ne daa waxoon ne daayir yi ak siyaar nañ ko taxawal ba mbas mi wàccaat mu waxoon ne weeru janvier wi amoon na yéene nañ mujjandiku bu weeru tolloo ci dee bu fekkee mu wàcc ñu tàmbaliwaat yàlla mi dogal nag moo dogal bi weeru janvier dee février bi dugg mu mel ni day gën di am doole rek di gën a diis sëriñ bi nag boobu ba léegi ñu bari ñu ngi yegg seen i addiya war ko jébbale kilifa yu bari ñu ngi bëgg ñëw ci moom baagi ci kër yu mag yoo xam ne ña ko jiite woon dañoo wàcc ne doo toog ci kër yi war a egsi ci moom te loolee boobu ba léegi jàppandiwut sëñ bi nag di jéem wax ne da ciy jéggalu bokki taalibe yi te ñu xam ne yéeneem jëpp mooy ànd ak ñoom liggéey bi xanaa rek kon da cee da koy booleeg ak ñaan li woyofaat woyofaat bañ mën koo àndewaat nañ ko daan ànde mu ne nag kon ginnaaw dafa amoon yéene weeru janvier bu dee ñu tàmbali te bi mu dee mbas mi mu mel ne lim yi dee yokku mu ne kon nañ muñandikuwaat baat boobu la ko wax nañ muñandikuwaat ab as ndiir tey ñaan mu gën a woyof saa su ñu gën a yolomal ba gisee gi mën a am waaye ginnaaw bi weeru temps bi day ñu dugg février bi daal gis na ne lim yi day yokk waxtu bu nekk moo tax mu bëgg nag conseillers yi itam ñu bañ koo gaawtoo te mu ñu ndikuwaat ba too ba mbas mi yor woyof te ñaan mi dem ba mu jeex yi ni muy yéegi fan yi ñu di déggandoo te moom day waxal boppam ne jàmmi bindeef yi rek jàmmi taalibe yi rek moo ko lii muy wax nañ mu jëndikoo li muy takk lépp yërëm bindeef yi ak bëggal leen jàmm ak bañ rek luy law ci biir ta bindeef yi moo tax luñ ne mooy tax du law rek mu ne kon ne la nañ leen ci fekk boole ginnaaw bu ñu jiitalee ñaan gi ba noppi xanaa sëñ bi doon wax rek la fi jaar loo xam ne da koy ñaan taalibe yi taalibe yi xam na ne dañ ko may sax ndax lu loo xam ne ñëpp koy rafetlu mu mel ne sëñ Basiru Anta Ñang mi jiite njabootu maam Cerno Birahim jamono yi sëñ bi door a fatu ci la tolloog sëñ Abbas di wàcc ba sëñ bi ñaanee nañ ko may nag sëñ Basiru Anta Ñang boobu ba léegi mu toog moom njabootu borom daaru gépp sëñ Basiru Anta Ñang bis bu mu yónnee ñaan sëñ bi ne ba daal yëfi borom daal yi mu yor dana ko jébbal sëriñ Tuuba ndax ñëpp a ngi moom te moom mën na ko egsi ci xaw naa di ci moom ñaan na ko nag weeru yàlla du teg ndax bu sanvier door teru ba bisu ba tënga ni mu di ko ñaan sëñ bi ni mu wax ñëpp mu di ko wax nañ te ñoo ne ko tuuti rek ndax yëf yi woyof ndax jàmm rek am solo donte xam na siyaare bi du xañ a bi ñëggindiku yàggee nag sëñ Bas di ko sàkku nag sëñ bi ne ma ginnaaw sëñ Bas boobu ba léegi mi ngi koy te liggéey bu toll noonu muy kër maam Thierno Birahim ci kër sëñ Touba mu ne da koo bëgg a jébbale koo bëgg a jokkale sëñ bi loolu sëñatu ko te kon nañ ko may mu ñëw jébbale loolu waaye ci biir bi ko sëñ bi may jébbale gi ci la sëñ bi waxaale ne jébbale ba noppi nag nañ wéyal sant santaane gi mu santaane ci néggandiko waat ab diir ba yëf dal moo wax ne bisimilah leeralu suñ bas gi rek la fi doon jaarale ndax bu waxee lii ñu daal di gis ne suñ bas ñëw ne day duñ te leeraluñ lu tax mën naa jaaxal keneen wala ñeneen jàpp ne kon daa far ubbi wala ñu jàpp ne am na ñu mën a ñëw ba tey waxtu ne ñuy baagan di ñëw duñ ko gis loolu lay bañ xam ne suñ bas moom weeru yàlla mu di ko sàkku yor gépp mu ko woon kon na ànd ak ñu néew ñëw jébbale loolu te te te ñu déclaration bi ñëpp dégg ko ne nañ mu ñëndi ko siyaar yi ba ba ba jamono soppiku ba mu dal ñu ko wéyal loolu la ma waxoon ne kon naa ko waxaat ñu waroon a ñëw jébbale tey liggéey war a siyaare si ak kilifa yi war a jokk ci ak ko rek mu gën di ñaan boromam ci barkeb Sëriñ Tuubaa mu jeex bañ mën a wéyal liggéey bi waaye fan yi ñu may ñu ko képp koo xam ne dégg na kàddu yi na ko jottali moroomam na sëriñ bi nee na nañ ko mayaat ab diir néew ma nag ba nangami fan néew ma it ba waxtu sangam dafa ne nañ muñalaat ab diir rek nu muñal jàngoro ji mu woyof kon xam na ne mi ngi ñaan te xam ne li mu ñaan boroom boroomam dana ko may ci barke bi sëriñ Tuuba waaye nag kon nun buñ ko yàkkamte nañ ko déglu moom rek moom lu ci war dana ko def lu ci gën dana ko wax te niin ko bëggee moonu gën a bëgg yéen yor seen i addiya ba ko andi moom it mu dëgg ma liggéey bi sëriñ Tuubaa bi bu sañoon kay ñu andi addiya mu def ko ci liggéey bi liggéey ba ñu taxaw te liggéey bi ñaanul yàlla mu taxaw te du taxaw sax waaye nag nan ko fekk ci lii mu wax li andi jàmm ndax jàmm rek la bëgg jàmm yi ñëpp la bëgg yërmande ñëpp la am kaaraange ñëpp la bëgg ndax képp ku nekk ci moom ngay yaakaar sa sa kaaraange gannaaw lu waaye duy metti nit mu bëgg ñëw ne bu ko sëñ bi ñaanalee nag gëm na ne dana tàggoog loola kon sëñ bi itam wattandiku ci jaamu yàlla bokk moo tax bëgg ñu kon nag ku dégg kàddu ko jot li mu sa morom bi ne nañ ko muñalaat nañ mu nañ muñalaat jamono ab diir ba lii woyof mu tàmbaliwaat liggéey bi ànd ko yéen nam ko àndee woon ak moom mi ñaan suñu borom jëlee fi mbas mi ci barke bi tuba Touba noonu taalibe it noo ngi mu nekk fi lii jaax nu wéyal ànd ak moom liggéey bi di ko jébal suñu liggéey bi sunu liggéey mu dina ko defal ci liggéey bi sëñ Touba ba mu am ndam nu ànd ak moom ndam la ma ànd moom ci lépp daje tawfeex Sëriñ Tuubaa ci lépp waaye yooyu la ñu yónnee woon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu